lu bu ñu jàngal suñu doom yi. Mhm. mooy quelle que la situation. Mhm. waxal dëgg yàlla tax. Mhm. pour man loolu laa gisee. da da nga da nga am ay relation particulière ak Ousmane Sonko. ma gis Ousmane Sonko xanaa télévision. man lu ma ah bon ko gis. télévision su ma ak moom. mais mu nekk mu nekk inspecteur des impôts nga nekk business ci suuf si. te mosu leen gisante gisuma ak moom parce soxla soxlawuma ko fa man li ma doon liggéey soxlawuma Ousmane Sonko. li bu nekkee inspecteur des impôts bu ma amee pour fay samay impôts soxla ma gis ko. non cest à li ma bëgg wax mooy ngeen bën ngeen bokk benn génération. bokk benn milieu bokkuñu bokkuñu milieu. Hmm, mosu leen gisante nga wax. mosuma gis mais wax nga maa ngi ñu doog gisante. gisante maa ngi ñëw ñu ngi doog gisante. tout à fait Ousmane Sonko mosuma ko gis du ma Pastef du ma Ousmane waaye nag est-ce que tey mais il a du mérite quand même Pape Ngagne Ousmane Sonko a du mérite. plus que Macky Sall. plus que Macky Sall. ah bon ah. Adama. yaa a laaj waaw maa la laaj waaw. waaw pourquoi Adama bi jaaxal la. non <laughs> ah mais dina ma la jaaxal. ah bon kay na jaaxal Adama. Ah, xam nga digg soo ne mu Ousmane Sonko a plus du mérite mu jóge ci yow. loolu kay loolu loolu ñiy seetaan ñëpp sax jaaxal na leen. je m'explique. xam nga Abdoulaye Wade Abdou Diouf ba mu fa jógee. Euh, Abdou Diouf Senghor moo ko fi teg. yaa ngi dégg. Mhm. Abdoulaye Wade di ñëw Macky Sall remplacé bu mu ñëw au pouvoir démocratie moo ko fi teg. xeex pendant plus de vingt ans di xeex di yegg ba ñu fàllu démocratie moo ko fi teg Macky Sall cinquante pour cent injustice cinquante pour cent démocratie moo ko fi teg ndax Macky Sall bu mu génnee am problème Ablaye Wade ñu bëgg ko toroxal mu démissionné en le vingt huit janvier le vingt huit décembre euh, deux mille huit la démissionné bañ ko toroxalee ci assemblée nationale. Mm-hmm. mu génn démissionné démissionné en tant que député. loolu du mérite. non dëgg lu ma rek. waaw mais damay wax mbir après mu wax bu Sonko nga xool ni Sonko moo moo moo gën mbir lay waxee de da nga bàyyi may terminer loolu mérite la waxuma amul mérite de mais Sonko a plus de mérite laa wax kon Macky Sall am na mérite à niveau A Sonko a plus de mérite à un foofu laay waxee donc Macky génn dem xeexi pendant trois ans mu nekk opposition dem xeexi di xeex di xeex ba gañ Ablaye Wade Macky si heure Abdoulaye Wade sukkandiku parce que boobu ñu ngi ànd xeex ñu toog di waxtaan xam nga mag kenn du xam lu bari si moom dafa noppi li muy wax bëriwul il nga jege ko trop pour xam yenn secret yi mais forum mooy dafa noppi saa da nga koy donc muy xeex teg ay stratégie di xeex di xeex ba gañ a Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade taxaw carrément ni moom dootul jàkkaarloog Macky Sall mais Macky na la mën sàgganee ba Sonko fi Macky jaar. ak injustice bi nga xam ne Macky am na ba sukkandiku ko ba gañe ñu jox Sonko loolu mu ñëw di gañe Macky Sall te Sonko mutul toj fenn Sonko mutul nekk ministre ministre Sénégal li ñu tàmm di xam mooy boo bëggee nekk président il faut nga am foo jaar nekk naa directeur nekk naa ministre nekk naa lii moom musul nekk loolu yëpp musul nekk loolu yëpp musul toj fenn tey Macky def ay erreur ma Abdoulaye Wade disait am na temps Abdoulaye Wade disait que am naa pouvoir am naa doole am naa pouvoir yàlla nangu ko jox ko Macky. Mhm. Macky dem 2022 France naan j'ai le pouvoir j'ai les moyens yàlla nangu ko jox ko Sonko ak Diomaye kon war ku nekk war nga jàngat ni nga def ba yegg si fii te waroo commettre erreur yooyu. yan erreur la Macky Sall commettre. waaw pour man. pam nga pam nga. Sénégal dañ ko fi tegoon. Mhm. mu ni deux mandats lay def. Macky Sall erreur ñu def bëri na ba mu gañ ba mu gañee ba mu gañee élection yi dafa ñëw taxaw mu ni gouvernement sobre et mu woo ay nitam ak Abdoul mbay mu woo ay nitam ni leen je vais enrichir personne du ma fi tolérer je vais protéger ma fi tolérer kuy lekk xaalis mhm. du may tolérer ku jalgati du may tolérer koo xam ni day yàq alal réew wax loolu gayet nii lii gongo wax sax ni kuy dugg ci Sénégal da ngay am visa yu mel dool jël ay mesures yoo xam ne ku ko dégg ni lii gongo réciprocité oui mu njëriñ ba quelque temps mhm. ñu gis ni li mu waxoon ak ni muy doxalee am na mhm. ñu gis ay scandale pam ngañ mhm. les scandales du siècle si régime bi ancien la am ah bon scandale oui pam ngañ fii nga nekkoon yow tamit non maa ngi fi woon non non yaa fi woon scandale du siècle ci régime boobu la amoon kay fi la amoon kay parce que gisoo même bu am na loo xam fekkee fekkee woo ko woon tamit da nga constituer l'histoire scandale yi am 2012 ba 2024 gisoo mu am ba amul volume nu mu toll nu mu amee doole nu mu ñaawee nu mu doyee waar gisoo mu am 2012 ba 2000 gisoo mu am koy tamit fa am ngañ gisoo tamit mu am temps Abdoulaye Wade Abdou Diouf. kon da ngay dëggal li Ousmane Sonko wax quoi ci bi ci ci ci conférence de presse am bu mujj bi bu wax ci économie bi. mais mais Ousmane Sonko loolu ngay dëggal dëgg la. ok Pape Ngagne Ousmane Sonko li mu wax dëgg la. Mhm. faralu ma ko ah dëgg ma na yàlla. Ousmane Sonko li des nga faral ko bariwul de. non du ma ko ah. parce que gis naa muy def yoo xam ne d'accord si mais li mu wax dëgg la mais ñun fi lañu fekk quand même ñu euh, entêtement bi nekk si réew mi mais musiba la Ousmane Sonko sax waxul lépp Pape Ngagne dafa am lu mu ragal te waroon na aller jusqu'au bout de sa logique. Ousmane Sonko jàpp naa li mu waroon wax bu ko waxee damay ragal mu mu Sénégal yi génn daw génn Sénégal daw moo tax dafa am lu mu wax am lu mu bàyyi. Pape Ngagne régime ancien bi fi nekkoon 2012 2024 dañuy jalgati réew mi suñu façon. mais mais Adama. Adama pourtant régime boobu ngay wax noonu. Mm-hmm. dañu naan lu jiin njaak tey njaak sa mag boobakal ndey ak Baye Marème mooy njaak. non si loolu la ñuy wax. dañu naan lu Macky Sall def Marème Faye moo ko ci dugal. loolu dégg nga ko déggaat nga ko. dégg naa ko mais c'est-à-dire yow loolu li ngay wax nii ci régime bi mais loolu loolu mais donc euh, mag euh, première dame aussi daf ci nekk daf ci am responsabilité ci loolu. pare nga dégg loolu tax na mu nekk dëgg est-ce que dégg xam nga waxoon da nga ko fekke fekke woo ko danga ne dégg naa est-ce que tax na mu nekk dëgg. man de ba ci troisième mandat bi ngay wax nii rek. man de musuma man man man man musuma toog de 2012 à 2021. musuma toog 2012 ba 2021 ma dégg fu Marème di waxee jëkkëram borom këram parce que 2021 ba 2020 ba tey gisuma Macky donc 2012 bi nga xam ne ànd nañu Macky nekk au pouvoir ba 2021 musuma gis première dame di wax jëkkëram ci biir ngóor yi. noo koy gisee yow itam. bu jabar di wax jëkkëram noo koy gisee yow. waaw mais li ma am na am na temps yoo xam ne. noo koy ko dégg. noo koy gisee ak ah, noo koy déggee. mën naa ko gis mën naa ko dégg parce que toog nañu lu bëri ànd nañu lu bëri. togg nañu lu bari du 24 sur 24 du 7 jours sur 7 mais na nañu lu bari togg nañu lu bari fekk naa lu bëri. Mhm. lu si bëri du ko xam lu si bëri du ko xam. Marème du ko xam. man lu ma xam laa lay wax. mën naa dégg benn ministre bu ne maa ngi gërëm Macky Sall maa ngi gërëm Safar laa. ndax moom ma nommé waaw mais boo ko di tontu yëg naa ko. Macky mooy daf ni ndax buñ ma nommé Marème jàpp na si bu baax. moom kan ma cagal ku yor domination bi Macky Sall la Macky est responsable mooy borom këram Pam Ngañ borom këram moom la ñu fal faluñu Marème moom moo rendre compte moom la fal. bu fekkee sàggan na bu ñu nekkee si biir nekk Marème def loo def loo ko lii mu def war na xam lu baax wala lu bon loolu fekkee ma ko mais ma li ma gis ak li ma fekkee laa wax Macky est le seul responsable. man li ma fekkee ak li ma gis mënoo ma wax loolu ma gisul mënoo ma wax li ma fekke woon donc régime bi li fi xew pour man Macky xam na lu baax xam na lu baax ma Pape Ngagne Macky était le devait être le meilleur le Sénégal ait ak jaar-jaaram. ci jaar-jaaram moom amul loo ci wax. moo tax ma ne jaar-jaaram. ci jaar-jaaram moom amul loo ci wax xam nga Pape Ngagne expérience la ñuy fay. waaw boo nekkee IHA kenn ki nekk IHA ñeen dëkk ko benn entreprise ki fa gën yàgg la ñuy gën a fay. ndax expérience expérience boobu Macky Sall daf ko am ba doyal comprendre nga kon jaar-jaaram permettre na ko mu waroon nekk le meilleur président du Sénégal Macky Sall n'avait pas droit à l'erreur donte doomu aadama la mais il était presque complet si jaar-jaar. d'accord léegi yow bu nekkul le le le meilleur président du Sénégal tey ci Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall. Mm-hmm. li Macky Sall def est-ce que tey. Euh, mën nga ko méngaleeg lu keneen def. li Macky Sall def te te te Adama man dama gis ni da nga ñëw ak nihilisme da nga ñëw ak soxor. non loolu loolu nga gis. loolu moo ma jaaxal quand même. xam nga xam nga ba nga ma njëkkee wax sànq si affaire loolu moo ma jaaxal loolu day tax sax yenn laaj yi doo ma ko bëgg a laaj parce que xam naa ni da ngay da nga ciy da nga ciy da nga ciy. non mais laajal rek nga laaj bul bul am problème pourtant ba ba ñuy commencé da ma wax affaire mbënd bi nga masuwu leen man leen man masu bi am na solo nga am na lu ko jiitu ñoom nañ jël seen responsabilité. non dama ni avant waroon nañu dëkk foo xam ne fii lu inondable la. Mhm. est-ce que loolu soxor la pourtant dëgg la. te nga laaj ma ndax Sonko li mu wax dëgg la ma la dëgg la parce que ñëpp xam nañ nañu que euh, le Sénégal était endetté hyper endetté en plus scandale li ñuy wax am na fi yow Pape nga ñëw tamit Pape Macky Sall nii am na loo xam ne teg sama loxo si la ñu fekk quand même li am si régime mu ancien régime bi de 2012 à 2024 si lu si réalisation. su lu baax am na fi li mu fi def kenn dafa ko fi boo jëlee le cumul Ablaye euh, Senghor Abdou ab la Wade li ñu réaliser le cumul Macky moo leen triplé mën naa ko wax. loolu mën naa ko léegi waaw loolu lu am la. waaw la man fii dëgg rek moo fi kenn loolu am la waaye tamit si lu ñaawteef am na fi pam ngañ loolu mënuñu ko mënuñu ko weddi am na fi pourquoi ñëw nga bu ñu waxee ne lii lu baax am na fi bu ñu bëggee dëgg ñaawteef ah yow da nekk bu defaan mag Sall laaj ko waxam. ah ah li ma wax de am na. non damay laaj ko non mënu ko laaj parce que. xam bu ko déggee sa dina tiit. waaw ah, man mënu ko laaj <laughs> xam ah. ah, ba tey gisuma ko dégguma ko. non li nga ma ne ndax dama koy defaan laale moom sax bu ko déggee dina tiit. waaw man waxuma affaire soxla damay wax li am. waaw te li am journaliste nga. Mhm. yaa ngi si milieu bi xam nga li am.